daan na Pokola Balde daan na Pikine tey waxuñu dara. Cheikh Niang kees la dëkk dëkkul Pikine. Cheikh représenté wala. man Cheikh Niang bëgg a bëri moom sax moom Tapha Gueye 2. yow ak Cheikh Niang. ak Tapha ak jiiri Tapha Gueye ak jiiri mun ay xaj ma seen kaw sax. Tapha tey booy bu ndaw mu daanu. Tapha Gueye Tapha Gueye ay feeña daan na Laurent yow maa leen mun tafaage non tafaage dafa mën a bëre ah xanaa ko seen la non tafaage mën dàq bëre mhm. nag xam naa rek comme loolu baax na si rek mhm. waaye moom Malick Ndiaye affaire moom Malick Ndiaye dafa Malick Ndiaye 37 fou 37 da ko war a may bëre moom mais moom neen Talfa la bëgg kan Tafa Gueye de Tafa ah, mun na ne a ah ku nekk am gëm-gëm rek gëm-gëm la gëmam de macha ñu ñëw ci grand combat bi Eumeu Sène Sa Thiès tey lan nga gis yéen seen laaj nag da ngeen de ma njëdd nab bi. non suñu yow suñu waaye nga. Ah, ah, ah, waaw yow ci làmb duñ doyal. amoon man de damay doyal nag mën na maa sonn. non mais ñun duñ doyal ci yow buñ toogee ak yow war a wax ak yow làmb en tant que Zil Balde faaw ñu xóotal parce que ñi bëgg a xam ñoo bari. waaw léegi Eumeu Sène. Eumeu Sène Sa Thiès. waaw bëri nañ làmb ju neex. Uh-huh. bëree mag a xale. Uh-huh. waaw Sa Thiès dóor ki Eumeu Sène bal ko lu takk da ko da ko da ko miine mhm. te ko miine saako yaakaar si kanam la jëm mu delloo ko si ginnaaw loolu mooy miine mhm. ko miine si kanam mu saako yaakaar si kanam la jëm mu delloo ko si ginnaaw mhm. mais tey gis beneen Sa Thiès Sa Thiès xamoon at mu dox sa kaw euh, nekk attaquant bëreeg yow def li muy def dem ñibbi ñu gis Sa Thiès taxaw est-ce que loolu la waroon bëre waaw li wax njëkk ba quoi nit ku nekk li nga mëne boo ko bàyyee rek am pour am am si tolof tolof bu fekkee na ngay at bu ne far na ngay dox kon waroo calculer bu fekkee kii dafa day taxaw ak kii dox ku nekk li nga mën da nga koy def boo boo bàyyi sa mënin rek un problème saa ko dal daa bàyyi mëninam waaw mhm. moo tax mu am mu am am décision bi mhm. kon tey dafa waroon na pire mu dox ci kaw Eumeu Sène kaw am lu mu am jël ndax loolu def di si am ndam mhm. waaw dafa ko ren dafa ko mu taxaw waaw moo tax macha allah boobu la def ba Eumeu Sène daan ko daanu na ci làmb ji euh, Franc daan na Bombardier tey Sa Thiès ëllëgu làmbam fi mu ne làmb yi Sa Sa Thiès Sa Thiès kii franc combat bu neex la. Sa Thiès franc. waaw combat bu neex la de. ñenn ñi ne Sa Thiès Bombardier. waaw Bombardier non Bombardier moom instant bi moo ko la moom comprendre mhm. xanaa moom day teg loxo yi xale yi rek comme rek. mun def comme yu ko mag yi doon defar rek mu def noonu di may xale yi sens. sans mhm. dépend mun na ko may jël mun na jël sens may ko sens. waaw ne franc kii moo gën a neex. franc Sa Thiès. Sa moo gën a neex. Mhm. victoire Eumeu la yóbbu Eumeu Sène. Eumeu Sène da da bu bëri. day des di bëri ay raqam. waaw ah, ay raqam lay bëri. ay franc Eumeu Sène. ah franc Eumeu Sène. bu neex la franc Eumeu Sène combat bu neex la. Mhm. macha am na solo tey boo amoon conseil boo xamante ni yaa ngi koy jox euh, xale yi nga xamante yaa yaay faral di leen indi ci làmb ku ci mel ni Pokola ak Ikiri Fallaye Balde yëpp ban conseil nga leen mooy seen gëm-gëm xam nañ ko xam ne li ñu war a liggéey ñu ngi koy liggéey. Mhm. loolu rek moo si nekk de. Mhm. waaw des rectifier ay rectification yu ndaw la rek waaw li war moom ñu ngi koy def ñu ngi entraîné normal waaw li war moom après loolu des ay consigne la rek ay calcul ay yële fii ngay jaar fii rek loolu dong moo fi nekk. macha ci moom tey Zil ki ni noo gisee Balla Gaye Tapha Tine seen face to face tàng na neex na. déglu nag man sonn naa. waaw dimbali ñu rek ci face to face bi tuuti Zil. Zil bala deux minutes waaw doo to face bi. ah sonn yéen nag noo leen gisee noo leen yéen yéen ëppal trop nag yéen foofu la ñuy tëjee ngeen lekk ndab bi dëpp ndab bi wëlbati ndab bi ba waaye ba ndab bi sax waaye waaw du des dara waaw dañoo ëppal nag mais neex la mhm. ku nekk wane nga am jóge naa si forme amay entraîné normal mhm. ku nekk nag ay ana seen mbokk làmb ju war neex yàlla na si yàlla jàmm dugg rek ñu dugg si bisimilah ram gën si alhamdulilah rabbil alamin mhm. état de forme yi noo gisee waaw ñu ngi si ñaar ku waaw macha allah kontaan nañ ci yow. waaw incha allah. ma nga noonu doo tàggoo état jigéen a koy nekk dégg nga. déggu ma. état jigéen la góor forme lay nekk. état jigéen <laughs> mel ni comme ay tof. Ah, ah, man sant yàlla rek jul sant sant sama ñaari waaju sant sama sëriñ atteex Mbàkke mhm. sant jamba sëñ Fallou gépp macha mhm. allah am na solo non zil dama ko bëgg barke Serigne Touba Aliou zil Baldé dama ko bëgg non zil suñu grand la dama ko bëgg man barke Seexul Xadim waxtaan ak moom dafa may neex ndax yaakaar naa ni euh, lii ku nekk bëgg na ko waxtaan ak Zil Balde xoolal ma sa bi sax fàtt naa ko dindi parce que Zil Balde yaakaar naa ni mooy làmb Pikine kenn dina làmb te tuddoo Zil Balde ndax yàgg naa ñëw euh, ci nga xamante ni mooy arène bi di bëre di wane boppam dem ba bàyyi bëre di gunge ay raxam ñuy bëre di ko ci félicité bu baax a baax euh, di ko kontaane ci yombal bi nga xamante ni Kalidou Jules Baldé tey yombalal nañu ko lii ndax yaakaar naa lii jafe na Jules Baldé làmb sonn ñu forcé ko mu wax ak ñun loolu yombul ñu koy béggawaat bu baax a baax di jox gars yi rek di daje euh, beneen yoon di bi waaw combat Liss Ndiago Pokola ku ne gis na ni mu demee mu bëri ñoom ñaar lu neex nag comme ni ko grand Jules waxee noonu laa koy waxee Baye Ndiaye amal na njukkal ñaari xale yi ndax ku ci nekk am na nu mu war a defaat ak yow yow sax yaa ngi ko doon wax ci biir reportage bi parce que ñaar xale bëri nañ combat bu métti bu yàgg boo xamante ni yaakaar naa ni tey képp kuy amateur dagg sa billet rek meroo mu nekk loo xamante ni yaakaar naa ñu koy félicité bu baax a baax di félicité waat waa Albourakh ndax yaakaar naa tey ni ñu def arène nationale arène nationale namoon na ko mu fees del macha allah ñëpp wuy si di leen ñaanal seen journée yi nga xamante ni moo nekk seen kanam yàlla na dàq bi Mor Kankang Youssou Ndour ñoom it ñu wane jom wane fulla wane fayda ba Mor Kankang am ndam ci kawam ñuy félicité Mor Kankang di encouragé waat euh, ki nga xamante ni mooy Tafa Mbeur di ko wax làmb noonu la da nga daan bëre di daan tey yaakaar ni am na fa ndam rek Tarabaxa Tafa Gueye numéro 2 di wax na yi na retour bu doy naa moo ko ko jox ñëwaat tey daan ki nga xamante ni mooy buusite waaye Zil Balde nee na Tafa Gueye 2 na nga may Malick Ndiaye 37 sens ngeen bëree yéen ñaar mais Djily Mbaye bu faas ak Cheikh Niang am ngeen problème parce que Zil Balde neen dafa bëgg seen combat yéen ak moom kon waajal leen te xam ne Zil Balde day defaat retouram te bu defee retouram seen kaw la jëm si kon waajal leen seen bopp bu baax a baax Sa Thiès Eumeu Sène mag la woon ak xale comme ni ko gars yi di waxee mais man nanguwuma loolu ay mag ak xale parce que Eumeu seen ku ko xam-xam nit ndaanaan la ci làmb athlète la am nangoo entraîner nekk koo xamante yaakaar naa def na lu ne ci làmb daan na Sa Thiès amul loo xamante ni da yàq ci yoonu Sa Thiès pour man waaw parce que Sa Thiès la ñu koy encourager bu baax a baax di ko wax ne xale nga euh, sa a ngi ci kanam ndax bërki Demba Ndiaye gis nañ ni nga def arène nationale daan Reug Reug jël boo xamante ni jël bu rëy bu amul benn werante ama seen daan la taxaatal jaaj yi suba dem entraîner ji te xam ni combat day gën a bëri gën a métti ndaanaan nga ñu lay félicité bu baax a baax face à face Tapha Balla Gaye 2 ku ne gis na ni mel mu nekk loo xamante ni li namoon nañ ko Kalidou li namoon nañ ko de ñëw ñaari mbër yi taxaw jokkalante waxante am jëb joxal njaay mais yoo gis beneen tafaatin parce que gars dañu ne woon tafaatin ñemewul euh, ñemewul jàkkaarloo ki nga xamante ni mooy Balla Gaye di wax mais tey gis nañ tafaatin bu làkk anglais ah làkk français di yuuxu ah làkk làkk ivoirien mais Côte neex na de non tafaatin Tapha Tine sa Côte d'Ivoire neex na mais fen du INSEP bàyyi di sil mos dem Côte d'Ivoire kal <laughs> yaa ngi may yàqal yaa ngi may yàqal kii kan la loo bëgg Pokola Baldé. arbitre yi ay saati ngeen. arbitre yi bal arbitre yi nga ne la yow ma ne Ama Baldé. ñun Pokola rek la ñuy topp. wallaahi hmm. am na solo. waaw. ayca. gars yi bëgg nañ ci yéen di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen sant jaajëf